ki nga xamante ni moom moo di euh, soxna Birame Souleye Diop nekk administrateur parti bi nga xamante ni moom moo di Pastef jamono ji ñuy wax ak yéen yoon daal teg na ko loxo ginnaaw daal ba ñu ko tegee loxo altine bi ñu génn te ñu ko teg loxo di division des investigations criminelles si yoonu bërëbu liggéey kaayam ki nga xamante ni moo di Patricia Mariam Gàndu nag lay wuyoo nekk so jabaru ki nga xamante ni moo di Birame Souleye Diop di administrateur Pastef jamono ji nag mi ngi garde à vue maanaam ginnaaw ba ñu ko dégloo moom nag dañu koy tuuma ni daal da doon def li nga xamante ni moo di ay menaces de mort ak tamit ngir fexe woote ñu yëngu yëngal ak yeneen ndodd yi nga xamante ne mu ne tegu nañu si kawam bu ñu sukkandikoo ci ëtt bi nga xamante moo di libération yu mel ne nag li ni mel tamit ñu ngi koy euh, tuumal ki nga xamante moo di ay collègue te bokk ci benn parti di Pastef kii di Fatoumata Traoré ak tamit ki nga xamante moo di Abbas Fall di coordonnateur euh, Pastef euh, fii ci Ndakaaru ñi nga xamante moo di Diop ak Abbas Fall ak ki nga xamante ni moom moo di euh, Fatoumata Traoré daal seen loxo taq na ci benn puce bi nga xamante ni daal dañ fa daan def lii ay menace de mort ak tamit di xoqalaate daal di ko jëmee ci ki nga xamante ni moo di ministre d'état directeur cabinet du président Mahmoud Sall ak tamit yi nga xamante ni moo jëm ci ay menace de mort mu nekk tamit li nga xamante ni daal waa parti euh, Pastef sax jamono ji ñu ngi def ay communiqué daal di wane seen soutien ak tamit seen faral seen ànd seen ñàkk ànd teg ñu teg loxo ki nga xamante ni moom moo di Abbas Fall Mariama Gandoul ak xamante ni moom moo di Fatimata Traoré